bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi sant yàlla di julli si bàyyi laay alayhi salaam di ñaan si weeru koor bi lu si def yàlla doon ay ngëneel di ziar njabootu ahlu bayti rasul di ñaan xalifa tu xalifa muslimina di ñaanal kilifa gi nga xam ne moo nekk si bopp bi yàlla na ko fi yàlla bàyyi ak bépp kalifa diine ñu ngi rafetlu nag teewaay bi lii tey boo gisee tey ñuy joxe ndogu xam nga dañ nekk si weeru koor yool bu nga xam ne lu waay def am ka waa Kawsara ak ñoom VIP Shop fii ngay gis nii si ginnaaw muy Pambay moo nekk nii xam nga mu initié lii muy premier édition ñun xale Kawsara waa Arlem di ñëpp ñëw taxaw ñu jël suñuy dërëm ak suñuy fukki dërëm def ko pour joxe ndogu si yool bi xam nga muy première édition ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla doon ay édition édition yu bari parce que weeru koor lu si waay def am nga si yool ñu koy rafetlu bu baax di ko ful rafetlu nan nag jëmm yi taxaw xale yi xam nga ñëw nañ jàpp si VIP nag mooy kii mooy Pambay kii jaay fii defoon nañ fi safar 18 safar defoon nañ ko si weeru koor bi tey bu ñëwaatee ñu doon ñu nekk si weeru koor ñu def ko première édition kon xale yi ñu ngi jaamu yàlla kon yàlla yàlla gën a rafetal jaamu yàlla bi pambay ñu bàyyi pambay nag moom mi nga xam ni moo waral lépp xam nga mu def ka waaw bisimilah. waaw ñuy jégalu ñëpp ñuy jégalu mbokk yi ak mbokku taalibe yi ñuy ziar daal. waaw lii nag première édition la quoi. lii première édition la quoi dañoo toogoon nii rek xalaat maa gars yi yëpp. gaa yëpp ñoom góor a mbaxal ñoom Lamine ak ñoom góor a naar ak Moussa Gueye gaa yëpp xalaat ay ñoom Sikale man ne nañ la premier jour première année quoi ñu xool deuxième année bi ni muy joxe quoi waaw bigit bi nag moo nekk nii quoi VIP shop bi nag moo nekk nii waaw ñaanal waaw ñu ñaanal nag ñu doon ay magasin magasin xale yëpp lu ñu dugg tamit suñu borom def mu réussir. ñëpp sa kaw sa kanam ñun fii nag si kër kaw saro bi kaw saro bi quoi. kër Baye Ousseynou xale yi kaw saro yi yëpp génne xale yi cité Cossène ñëpp génne ndaw yi nag kontaan nañ si ñoom nag bu baax a baax ak sama xarit yi ak sama gars ak sama booy yi quoi. xaalis bi xaalis bi booy ñoo ko dajale yenn yi jox ma ko yenn yi yenn maire ko yenn sama place bénéfice bi laa jëlee tamit def si quoi gars yi yëpp dañ ma jox waa booy yi defar nañ ko fi daaw ko mais ren ñu ngi koy waajal bu gën a mag bu soobee yàlla incha allah. waaw Cambérène la ñu ñor. ñun Cambérène rek ñu ñor. waaw bëgg jeunesse bi yëpp baax xam bëgg jeunesse tamit am nañu jàpp Cambérène rek la ñu ñor dara ñoruñu waaw. nekkuñu si politique nekkuñu si dara. waaw laay laay laay Mokhtar ñi ngi gërëm waa Cambérène ñëpp xama di gërëm jeune Kawsara yi. xam nga si ina si initiative bi ñu def nii quoi di wax ni initiative bu rafet la quoi xam c'est à saluer maanaam nekk si weeru koor génn di partager ay ndogu xam nga di ko joxe parce que daa am ñaa xam ne dañuy ñibbi te ndogu si yoon bi la leen di fekk dafa rafet quoi te xam nga yàlla xamoo la siy pay xam di ka ñaan yàlla ñu def kay édition édition waaw salaam si baax na waaye ñu mu gaaw. salaamaaleykum. tuuti rek salaamaaleykum. maa leen ku nekk seen tur seen sant di leen wax laay ma taar laay ma diine. maa ngi ziar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax si weeru koor bi di leen wax baal nañu àq baal nañ leen. lan la ñu yàlla boole jégal ñu téye koy déwén. waaw mais lii initiation bu rafet la quoi. gars ñoo def lii seulement VIP góor a mbaxal ak suñu grand yëpp fa dëgg yàlla initiation bu rafet la quoi di ñaanal rek yàlla nañ ko yàgg a fekke quoi yàlla dañu dool dañu kàttanal quoi nu mën ren déwén ñu mën lu ko a quoi incha allahu rabbi